sëriñ Mbuub ñu fal ko mu doon meeru Kaolack bu yees tombeek sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru di xalif général des Mourides ñëw fii ci diwaanu Kaolack ci ngan goo xam ne da ko fi amal moom sëriñ Mbuub ànd ak mboolem délégation bi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi dem ziyaare ji sëriñ bi sant ko gërëm ko ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne saa su ne mu koy am ak ñaan yi nga xam ne du dañ di ko ñaanal. waaw xam nga ak mbégte laa ci yëg sëñ bi bu ñëwee fii ñëpp la ñëwal bi yëpp la ñëwal xëy na kenn ku ne bu la buy nag nga séddale li la ci ëppale bu la neexee nga ne maa ci ëppale waaye kenn ku ne rek nga ne maa ci ëppale waaw ah, kon ñëw bi mu fi ñëw nag ñëw bu rëy la ci ñun ah, lu barkeel la ah, duñ man lu dul sant ko ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi rek dëkk bi meer ci suñ loxo la nekk xëy na jëlaguñ jëlaguñ fonction waaye bu beneen yoon daal nañ ko fekkee fekke fekke ñu ñoo koy dalal kon nag euh, sëñ bi moom daf ñoo dañoo yàgg mu yàgg ñoo woon bëgg gum bëgg Kaolack waaw ndax moom daanaka euh, Kaolack mooy gannaaw Touba kawlax mooy dëkkam voilà mu may ñu yëtt ju mag nag digal ñu euh, wax ñu ne lépp loo xam ne nii mooy luy njariñu askan wi nañ ko jiital ci li ñuy def nañ fàtt suñ bopp jiital ko ndax askan wi leen waroon def nañ ko mooy fexe nañ ba jox ñu li ñu doon wut kon nag ñun ñoo ci des. meeru Kaolack bu yees bi di Serigne Mboup lancé message ñi nga xam ne ñoom ñoo di Kaolackois yi ak ni nga xam ne noonu la fas yéene taxawoo dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack. waaw message bi may laajte askan bi rek mooy ñun dañoo nar a liggéey comme liggéeyu taalibe ndax dañ ñoo jox maire bi comme ay taalibe bien que lu waay di xam ci njàng ci man-man ci ci ci ci ci expérience xam nañ ko waaye dañoo bàyyi lépp jiital li nga xam ne nii moo jiitu ci ñun ndax nit ki lu mu mën a màgg-màgg yàlla def na ko minaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa mooy suuf si ci la ñu bind ci la ñuy ci lañ nekk ci la ñuy génne kon nag ñun fuñ mën a toll rek fa ñu jógee ak taalibe duñ ko fàtte loolu nag la ñuy wax ñëpp ne leen nañ nekkaat ay taalibe ñun ñëpp. muy taalibe murit taalibe tijaan taalibe euh, euh, yëpp ñu taxaw jël Kaolack nag defaral ko suñ bopp konte suñ moyen bopp ba pare ku ñëw dimbale ñu ci ndax olof kat day wax ndimbal na ci fekk loxol borom hmm. kenn yaakaar ne dañoo war a toog fii naan nañ ñu jox nangam ñu defar Kaolack nañ jóg ñun futtiku defar Kaolack bu ñu defaree Kaolack rek keneen danañu fa fekk incha allah message boobu laay lancé ñëpp. ci fàttali Serigne Mountakha Mbacké Bachir nganuk ñetti fan gi bu matee dafi bàyyeekoo dem ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Porokhane ngir waajal màggaluk soxna jaara gi.